asalaamaaleykum man Emmanuel Magou Fayla Toudou, jangale jàngalekat la ak kat nek université Cheikh Anta Diop nek euh, faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation Bokit ci ñi ni organiser lu ñuy tuddee salon international du livre de Thiès ndaje la boo xam day dajalé ay ñoo xamné dañuy yëngatu ci ay livre ci mbind ci mbind ci tasaare mbind ci xamle mbind ak ci sopp mbind ba mën a xam li nekk ci mbind ci wàllu xam-xam surtout ci wàllu xam ëllëg xam démb ngir mën a waajal ëllëg salon boobu nag ñi ngi koy defee fii ci esplanade de la mairie bu Thiès ci weer wi di ñëw weeru décembre du 12 woor bi amee fukki fan ak ñaar jusqu'au 15 décembre 2018 salon bi dafa am un partenaire stratégique boo xam ne mooy ministère de la culture ñëpp xam nañ ne Sénégal ministère de la culture mooy gérer en fait politique culturelle u réew mi et ministère de la culture dafa am lu ñuy tuddee calendrier culturel salon bi léegi dañ ko inscrire ci calendrier culturel u ministère bi donc ministère bi manifestation yi nga xam ne daf leen di topp di leen parrainer at mu ne léegi boobu bokk na ci loolu nag lu am a am solo la c'est parce que salon bi mu ngi mi ngi bëgg a ami fan ñu ci ñeenteelu édition bi gis nañ ne lii ñuy def kat lu am solo la lu ñu war a jàppale la te wax dëgg yàlla buñ ko jàppalee réew mi yëpp moo ci am intéret rawatina population Thiès yëpp. looloo tax balaa maa wax ñeneen ñi ñëpp li may njëkk wax mooy woo population Thiès yëpp xale yi mag ñi góor ñi ak jigéen ñi surtout jigéen ñi nekk ak xale yi dañoo bëgg jigéen ñi xam livre yi ak seen njariñ di di leen lire et surtout du gunge di gunge xale yi ci lecture livre yi ci kër yi naan léegi xale yi du ñu liir mais bu soxna yi defoon benn effort bu ndaw bu élèves yi jógee école bu ñu noppaloo ba lekk tuuti ñu ne leen kaay leen liir lan nga liir sa école ñu liir kaak ñoom ba nañ jën ak ñoom même bu fekkee 30 minutes rek loolu dina leen dimbali bu baax ci seen njàng dina dimbali jàngalekat yi dina jëngal dimbali société yi bi yëpp ginnaaw ñooñu nag dañoo am yeneen partenaire stratégique parce que boo waxee région de Thiès di nga wax gouvernance dañuy invité gouverneur invité préfet wu Thiès waaye ki nga xam ne itam wax dëgg yàlla mooy kilifa Thiès mooy dalal ñëpp mooy mairie Thiès te maireu Thiès nag ñëpp xam ko ne c'est un homme de culture ku bëgg culture la ku bëgg woy la ku bëgg poésie la ñoom ñëpp lañ dina invité di invité bindukatu Sénégal yëpp commencé ko association des écrivains du Sénégal te Alioune Badara Bèye jiite ko après texte si tam yenen kilifa yi nekk Thiès yëpp maire yi comme maire Thiès Est Thiès Ouest Nord autorité autorité académique autorité universitaire Nous dañ leen ciy woo ndax wax livre it wax dëgg yàlla ñiy jàng ak ñiy invité université ak lycée en passant par l'inspecteur d'académie, les IEF les chefs d'établissement établissement ak école maternelle laa wax ba ci lycée ak ci université bàyyiwuñu kenn ñëpp lañ ci invité parce que dañoo bëgg ñu yëg ne mbir mi seen mbir la dañoo bëgg it ne nit ñi dellu jël livre dugal ko seen dundin parce que livre dafa xaw a tumuranke ci suñu dundin tey te dañoo bëgg livre nekkaat suñu biir dundin nit ñi di ko gis di ko xool di ko laal mais di ko jël di ko jëfandikoo di ko liir nga xam li ci nekk ndax di liir livre day tax nga xam sa tey parce que day tax nga xam sa démbu daf lay mën a préparer loo aussi sa ëllëg mais day tax it nga mën a waxtaan mën jokkoo ak ñu nekk feneen ci àddina bi ci ay xalaat loolu lu am solo la ci livre te ñu bëgg cee woo ñëpp. ginnaaw loolu it am nañ ay écrivains yu ñu ciblé kii di Seyba Traoré nekkoon metteur en scène bu mag te nekk poète bu mag itam kii di André Marie Diagne euh, kii bi passé grand prix du président de la république bii bi passé moom moo amoon prix d'encouragement Euh, Mamadou Samb ko xamne un kat la ñep xam nañ ko legi fu ne lay dem ñep xam ko euh, Felwine euh, ndaw Sénégal ku am xam-xamu économie xam-xamu culture tay bind ay livres bari ci philosophie itam ci ay essais Samba di poète bu mag Babacar Mbaye Ndak di mais également di te ku ne xamne lu am solo la ñun ci sunu sunu a. ak sunu aada Laman Mbay itam di léebkat moom itam ba dara Seck kooku bindkat la bu bu xereñ Moustapha Ndéné Ndiaye it ci lay bokk parce que moom aussi bokk na sax ci ñu organiser salon bi ak Fama Diagne seen Fama jaañ seen moom bindkat lañ bu ñëpp xam mos na sax nekk grand prix du président de la république pour les lettres di invité it Marouba Fall Adja ñaam bu jiite daaray Sembène ku ne xam na Sembène Ousmane bindkat bu mag la woon xalaat xalaatkat bu mag la woon te daaray sembeen gu mu jiite taxaw ci wéyal ci yaatal it xam-xam ak xalaatu Sembène Ousmane bi defe naa sa xalaatu Sembène Ousmane ku ko xam nga ne lu mën a jëriñ sunuy réew la que mu doon euh, yi ñu adapté pièce de théâtre que mu donne cinéma am wax dëgg yàlla lu mën jëriñ réew la invité poète bu ñuy tuddee Mamadou Mbaye koo xam ne wax dëgg yàlla dafay bind ay taalif ci français ci anglais ak ci wolof te wax dëgg yàlla di def ci nu xarañ xarañ sax wax dëgg yàlla ñoo ñëpp ñu leen di woo di Sénégal yëpp ma ma beral loxo nag ki nga xam ne marraine marraine bi mi ngi tudd euh, benn soxna su baax la wax dëgg yàlla koo xam ne dafay bind ay livres yu bare bare ay téere yu bare bare ñu tuddee ko kenn bëggul ñu bari nag xamuñu turam man duma leen wax turam fii xëy na bu ñëwee dina leen wax turam moom mais ku mën a bind la ku ñu ràññee Afrique dëkku tubaab yi partout ñi ñiy gëstu ci mbind daal xam nañ ne ku am solo ci mbind ku am xereñ la soxna su baax la itam wax dëgg yàlla di ko nuyu nuyuwaale di waale it ku mel ni wax dëgg yàlla Aminata Sow Fall bëgg nañu mu teew di waale te tey jaale nag Rahmatou Seck Samb moom it bëggoon nañ ko invité waaye borom këram day doog a wàcc liggéey ñetti fan yii rek looloo tax invité wuñ ko xeyna dina comprendre lolu ndax tiis gi mu nek te ñuy bok ak mom tisam nak bu baax wax deug yàlla ndax ku baax la ku ñu xam la ci wàllu mbind grand prix du président de la république bi wessu mom moko gagné won wax deug yàlla kon koku ku mëna bind la di wo dal population Thiès yëpp kat yi xalé yi mag ni góor ni jigéen ñi ak ñëpp que ñu mëna djégé luy livre xam li livre livre mëna a dugg ci sunu société parce que livre mënuñu ko bayyi ku bàyyi ku bëgg a bàyyi livre da ngay bàyyi xam-xam ndax livre mbirum xam-xam la te defe naa bàyyi xam-xam moom kenn mënu kaa def ndax xam-xam moom moo jiitu lépp si àddina loolu daal lañ bëggoon a wax te di ci woo ñëpp te nag di mujjee di mujjee taskatu xibaar yi ndax dañoo jàpp ne wax dëgg yàlla ñu jàmbaare la ñu te it wax dëgg yàlla bonoo woote lu toll noonu te taskatu xibaar yi teewuñ ci il faut ñu teew ci xeetu xibaar yi taskatu xibaar yëpp nag que mu doon ñuy bind ci journal këmu doon ñuy def télé ñi def rajo ñi neen ci xarala yu bees yi internet ñëpp la ñuy woo di leen ñaan ñu jàpp si mbir mi siwal ko bokk ci liggéey bi ku ci ne rek li nga ci man ci lu baax ak ci lu rafet nga def ko ba yàlla defal ñu ci ndam pour culturel parce que lolu nous na en biir Thiès dund au plan culturel tel lolu dañu bëgg mu soit soit tel té lolu nak yaakaar nañ manifestation bi ak une ay manifestation wax à yalla dinañ ko mëna suxali dal nous invitons Mamadou Samb dont en fait, les œuvres sont connues aujourd'hui un peu partout. C'est un, écrivain qui, va un peu partout. félix Sarr aussi, qui est très connu dans le monde entier en tant que porteur d'idées, brillant écrivain, mais en même temps économiste, en même temps homme de culture, etc. Nous invitons également Samba qui écrit de la très belle poésie, Baba Mbaindak, qui est conteur, qui écrit beaucoup de poèmes, mais qui en déclame beaucoup aussi, parce que n'oublions pas que le conte en particulier reste l'un des vecteurs principaux de notre culture africaine et des cultures orales en général. C'est un espace de gaieté, de bonheur, mais c'est un espace de dialogue, donc un espace en fait de transmission de valeurs. Le compte est, tout cela en même temps. Et même autre chose que je n'ai pas dit, M. Lamanbaï également, qui est compteur professeur Aline Badarasek, qui est écrivain, romancier, Moustapha Ndenendjaï, bien sûr, qui est en même temps membre en fait euh, du salon, des organisateurs du salon, Fama Janssen, qui a déjà été Grand Prix du Président de la République pour les lettres, très connu, Marou Bafal, Adja Maïnan aussi de Daraï Semben, pour tout ce qu'ils font, tout ce que Daraï Semben fait autour de la littérature de Semben, des idées de Semben, mais également autour de l'éducation en général et de la revitalisation de, nos valeurs fondamentales et de nos valeurs vitales. Mamadou Mbaye, également le poète succulent de l'amour, tout le monde le connaît, qui fait de la très belle poésie et qui a la particularité de déclamer ses poèmes aussi bien en français, en wolof et même maintenant en anglais pour dire que ce salon également sera un espace de l'entre-culture. Autrement dit, plusieurs cultures vont s'y rencontrer, plusieurs façons de faire vont s'y rencontrer, plusieurs regards vont s'y croiser et je pense qu'il y va de la vitalité de la littérature et et par de la, littérature, il y va de la vitalité en fait de la culture tout simplement, de ce qui fait être l'être. Bien sûr, au-delà de ces écrivains que j'ai cités maintenant, nous invitons tous les écrivains, tous les créateurs, tous les hommes de lettres, toutes les femmes de lettres du Sénégal et même d'ailleurs, qu'ils viennent à ce salon, qu'ils viennent partager avec nous leurs textes, leur expérience de la vie, leurs idées, parce que les écrivains également sont des créateurs d'idées et ils ne sont pas juste là pour nous amuser, mais ce sont surtout des créateurs d'idées. Et il faudra le dire également, comme disent les Anglais, last but not least, nous invitons également la presse. Nous comptons beaucoup sur la presse, toute la presse sans distinction, que cet événement soit relayé à travers les journaux écrits, les radios, les télévisions, sur Internet, etc., etc., et que ce soit vraiment un moment de partage, un moment de vitalisation de la vie culturelle à Thiès, parce que nous en avons vraiment besoin. Actuellement, Thiès souffre en fait d'un manque en fait euh, de vie culturelle. Et c'est pour cela que nous appelons tout le monde. Je n'oublie pas également les troupes traditionnelles, particulièrement les troupes traditionnelles serrères, parce que Thiès est un terroir serrère aussi. Et donc, toutes ces troupes sont invitées à venir participer à ces moments de bonheur du 12 au 15 décembre et que, bon, ce soit un moment de fête d'abord, mais également un moment de partage, un moment de rencontre surtout, de plusieurs façons de faire, de plusieurs regards, comme je l'avais dit tout à l'heure, de plusieurs façons, de plusieurs façons de voir le monde. Et cela, je pense que si nous réussissons à le faire, ce sera au grand bonheur de la région de Thiès en général, de la ville de Thiès en particulier, et surtout de sa jeunesse, parce que nous avons invité, comme je l'avais dit tout à l'heure, toutes les écoles de Thiès, que ce soit des écoles maternelles, que ce soit à l'université, avec l'université de Thiès, que ce soit les lycées, les collèges, etc. Parce que beaucoup d'élèves, on a tendance à l'oublier. Quand on leur parle d'écrivains, ils pensent que ce sont des hommes morts, alors que les écrivains sont effectivement vivants, mais c'est parce qu'il y a un manque dans les programmes scolaires. Les programmes scolaires enseignent très souvent, pas toujours d'ailleurs, mais très souvent, des écrivains qui sont morts, qui sont du, qui soient du 16e siècle, du 17e siècle, etc. Et donc là, ils auront l'occasion de rencontrer des écrivains, des conteurs, et de pouvoir partager avec eux, de pouvoir comprendre leurs œuvres, mais surtout de pouvoir comprendre en général, en fait, la littérature. Et la littérature, en fait, c'est le ciment du monde. On oublie que tout ce que les êtres humains vivent en termes de valorisation, surtout de revendication euh, de valeur c'est fondé par la littérature. Et en cela, les mythes les contes, les chansons, etc. sont d'abord des sources originelles, mais des sources d'une première importance. Et en cela donc, je, je renouvelle l'appel à toutes les populations tiessoises pour venir assister en masse à ce salon international du livre de Thiès qui se tiendra devant sur l'esplanade de la mairie de Thiès du 12 au 15 décembre 2018. Je vous remercie.